Barcelone dellusiwaat na ci seen mondial ak mbégte goo xam ne ab équipe am commencé nañ ko tey jii ci ndorteelu li nga xam ne mooy pré-saison bi fekk na booba Real Madrid ak i gaayam gaay yi seet nañ seen yorom cooytu ko xool ba xam ne goney Madrid yi daanaka fi ñu ton nii ku nu jàpp ci saison bi ñu dëgmal danañ la yitti ba ngay bëgg a dee loolee am solo bu baax a baax abonnement yi gaay yi bu leen ci des ginnaaw ndax lépp loo xam ne concerné na équipe yooyu Barça Real ak ñeneen ñu dul moom ci wàllu sport da ngeen ko man di ci Aladji Malick TV bi mooy tax nag lépp lu nu ceew seconde bi ginnaaw ba gërëm a baax ngeen gis gars yi Ibrahim Diaz moom moo mee newoon fële moom moo doxal na fa gars yi ña ngi may teere meilleur club du monde a kenn ku ci mën doon jaar fi nga xam ni mooy machine yu xarañi xarañ googi nag bu fekkentee ni ak cawarte ni wut ci yow bi danaan la demal toog ne maanaam coytu seen yaram wala xem moom li nga xam xam ne mooy ab testam mu jaar yoon lépp tolloo gone gi dip espagnol nekk li nga xam ne mooy stopeur maanaam gone yi naan ko ab défenseur boo xam ne mën naa jiital carte bi carte bi mën na koo jiital loolee lépp daanaka nekk lu am solo ci moom Barcelone ngeen gis ko noonu gaa ñi mbégte mi nu wane tey daanaka mbégte mu sedd xol mu dunde yaakaar ci saison bi ñu dëgmal ngeen gis leen noonu bi ni door daanaka ñoom ñëpp kenn comme ci man di doon boo bokkul ci photo bi boo bokkul boo bokkee am nga taxawaay boo xam ne bëgg nga ko sa bi nga xam ne moom nga bëgg ci sa xol Barcelone di ay catalan yoo xam ni euh, seen wax ak seen changement ren jii am na leneen lu ñu bëgg lu bokkut ak maanaam euh, yem ci li nga xam ne mooy Liga bi Ligue des champions bëgg nañ koo coppatiwaat ginnaaw ba nga xamee ni ñoo ko moomoon loole tamit gaa yëpp di ko xaar. gaa yëpp di xaare euh, fete Valverde fede Valverde moom it bokk na ci ñi nga xam ni doon nan euh, jongur fële nga xam ni mooy ca Madrid pour mën a wàcc seen i bagage Mendy mi gaa yi yaakaaroon ni danaan fay dem Mendy puusul paasul euh, jegewul ci Real Madrid exa côté gauche ba càmmoñ ba ba tey jii am na yéene yi dafa doxal lu mu am jël moom moomee nga xam ne gaa yi jàppoon nañ ni deful dara Real Madrid ndax niveau ba sax man jàpp naa ni des na bu baax a baax ci club bii di Real Madrid ak taxawaayam kon Mendy moomee ak footballam Real loolee mën naa am ak cooxe goo xam ni mën na koo am ci moom ndax taxawaayam des na bu baax a baax ndax téeli téeli jéeg rajax-rajax ji ak baraj-baraj ji muy def loole amul benn njariñ te dikkewul équipe bii di Real Madrid dara dikkee na équipe bii di Real Madrid dara Bellingham ngeen gis ko noonu moom it gonek anglais gi welo la yor tey jii ci commencement bi moom it coytu na ni yaramam xool ko lépp jàmm lépp a ngi tolloo mi ngi ci jàmm ak salaam mën naa dàbbar ñi lii di match yoo xam ni match haut niveau la ca club bii di Real Madrid kon gars yi ngeen xaar loolu ak programme yi nga xam ne bu saison bu ubbee ren moom seen bii di Aladji Malick TV am na yéene euh, gën a euh, yokk li nga xam ni mooy filiale yi bu ko defee euh, gars yi gën a mën a xam ni lépp fii lay xewee mburu mu tàng mi ak émission yoo xam ni danañ ko am ak di invité supporters yi ak nañu ci groupe WhatsApp ba lépp rek programme la ñi ngi ci incha allahu yàlla